salaamaaleykum internet Sénégal alors tey ñu am mbégte dalal fi PMP koo xam ne euh, mu ngi commencé teg ay jalon ci ci musique sénégalaise bi gis nañ ko ak euh, clipam bu mu génn ak Akhlou Brick récemment mu génnee beneen clip rendre hommage sëñ bas ma bàyyi la nga nuyoo ak internet yi ñuy seetaan. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni salaamaaleykum Sénégal <laughs> asalaamaaleykum tout waaw léegi suñ la doon wax nga nga nga présenté wu ñu la xamul lan euh, nga may wax. waaw parce que man maay Papis Mbaye. Mhm. je suis né à Saint-Louis. donc ñëw Dakar ça fait plus de vingt ans def sama carrière musique et j'ai partout aussi. Mhm. voyagé naa fu ne def naa musique bu ne aussi mais actuellement je me suis concentré sur l'autre album album bi ma bëgg def nii. muy featuring yi en même temps di def benn musique boo xamante ni aussi c'est un peu compliqué pour nga expliquer ko sénégalais yi. Hmm. mooy afro house bi may def. afro house mooy lan. afro house ça veut dire c'est une musique électronique. d'accord mais je compose li nga xamante ni moo nekk ci ñun mooy sunuy percussion ñun lu nu moom mooy tradition bi. parce que percussionniste nga. waaw parce que mhm. man au fond je suis je joue tous les percussions mais actuellement nii dama ci boole. way bi way gi ak discipline aussi et puis di joue ci harmonie yi nga xamante ni moo tax ñuy wax musique la base de la musique c'est les harmonies donc man ci loolu laa gën a féeru parce que j'ai fait jazz pendant dix ans. Hmm. donc je connais bien. la musique la musique xam naa baax li may wax quoi. <laughs> vingt ans yooyu noonu euh, te grand public bi xamul la lan si lan nga doon yëngatu est-ce que lan moo tax fësaloo sa bopp. Euh, ba léegi waaw parce que soo gisee public bi ñoom si li ñuy gën a focusé wu pour xam nit ki mooy lii nit ñi di def parce que man j'aime pas man su may def dara dama koy def ak logique gu musique. peut-être que ñoom logique musique bi ma nekk ak logique ak logistique bi ma nekk c'est pour peu compliqué pour nous découvrir c'est pourquoi ma ñëw indil leen ay projets yoo xamante ni il faut bientôt découvrir parce que fi musique yu bare yi nga fiy gis man maa koy def. comme yan. bare na. comme yan. ak lu birig defal naa ko seen musique yi sooy xool soo boo tapee da ngay gis PMP percussionniste ak ñeneen ak ñeneen ñu bare sax. da ngay participer si seen album. waaw damay participer en tant que en tant que percussionniste damay jouer damay ñëw harmoniser musique bi ci samay percussion. parce que am na yeneen instrument yoo xam ne ay percussion la mais yooyu da nga koy dégg nga foog nii la musique c'est programmé à la base de beat mais non parce que dama koy jouer ak sama cajon benn instrument bu tudd cajon. Hmm. mais yooyu mooy créer beat yi ci yooyu nag laay nekk di ci créer yoo xamante ni ci sama base de musique même temps loolu peut-être si loolu nga doon yëngatu vingt ans yooyu balaa ngay nag. wax ne damay way. j'étais un requin avant. d'accord je jouais tout le monde tout le monde jël naa ñëpp. Hmm. jël naa Carlou D jël naa Cheikh Lo jël naa Marema Fall femme d'affaires album yooyu yëpp maa ko def maa woo oto yeeg artiste jazz bu mos ñëw Sénégal y avait un animateur qui s'appelle Mikaël Souma te dit directement appelle le percussionniste Papis. donc avec ça j'ai fait avec tous les jazzman ci mhm. yooyu laa nekkoon mhm. lan moo xëy rek nga ne damay teg léegi nag si li may mën ci côté instrument yooyu noonu damay teg sama voix léegi man tamit di way comme ñëpp. waa c'est parce que musique kenn moom ko man mënuma dëkk ci kër géwël famille bu mag sama maam di way di way fanaal yi nekk ndar maire Ndoumbé Daouda Seck yàlla na fi yàgg loolu te wér nekk moom xam ci moom yu bare géwél yu bare di dem suñu kër di fa jëli ji ay affaire di ko way mais man papis pourquoi pas mun mu ah, nag mooy bàyyi leen seen yooyu nag c'est pas parce que kër gi géwél la ñëpp dañuy way que da war a way sax c'est que du cadre bàyyi loolu mais hmm. dafa nekk loo xamante ni mi ngi ci man parce que sama famille yëpp ak ci màgg voilà ok ñëppay def loolu mais man maa opté woon beneen affaire parce que man sama papa moo nekkoon si Doudou Ndiaye Rose booy ndar moo daan foor sabaru Doudou Ndiaye Rose yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana mais moom sabar la doon tëgg mais man papis tëgguma sabar man jémbi laay tëgg mais bu ma jëlee sabar tëgg ko nga xam ni kii tëgg ko sabar la mais du ko tëgg man jémbi laay tëgg. jémbi nga tëgg. ak ay garabu ay konga ak affaireu latino yi. yooyu c' est autre chose c' pourquoi sénégalais yi duñ la gaaw a gaaw a découvrir. Mm-hmm. parce que affaire internationale bi mu visé wu ça ak affaire yi moo tax léegi bi ma bëggee ñëw nag parce que li naan balaa ngay toj dëkku jàmbur tojal sa dëkk ba pare. Mm. c' est pourquoi moo wàññeeku ñëw pour toj fii te incha allah fii dina toj. di nga toj. incha gis nañ album Tefes ah. Euh, déglooguñ ko dégluwuñ ko du mas mais gis nañ ko ci ci ci ci disponible na ci YouTube sa chaîne YouTube nga ñëwaat ci un peu sorti album boobu est-ce que tamit am nga ci satisfaction. waaw parce que boobu moo doon deuxième album Tefes bi parce que am na album bu tuddoon Crossroad mooy ay mm-hmm. Tefes bi ñëw parce que Selebeyoon boo ko déggee mooy. musique mélange foofu laay waxee ak nit ñi tefes bi mooy au bord de la mer mhm. parce que mën je fais une musique pour nga écouter am ci rêve mu am lenn lu mu la jox malgré percussionniste la mais il faut jouer juste les percussionnistes il faut bien les doser nit ki mën ko déglu mu dugg ci xolam moo tax mu tuddee album bi tefes borom xel yi daal ngay waxal foofu tefes daal tefes waaw koo xamante ni daal bëgg nga dund lu neex parce que yow soo meree tefes gi nga jëm dem wuti air bu baax dund donc yóbbul nag albumu tefes bi nga toog nga déglu mu yóbbu la fu sore yóbbu la fu sore d'accord mais am est-ce que am nga si satisfaction retour yi nga ci am ci album boobu noonu retour moom sérieusement parlé c'est bien fait mm parce que soo xoolee man tubaab yi ñoo may gën a xam parce que ñoom ñooy jënd album bi. ah tubaab bi ñooy jënd nga album. ñooy jënd album bi yëpp parce que. fii daal du ñu jënd album. Sénégal moom génne leen single ñu xam ñu dem télécharger bëggee ko mais soo bëggee ñoom it ñu ñëw ci sa côté il faut nga jox leen. Mhm. boo leen joxee ñoom ñu fekk si la moo tax ma leen di jox. Mhm. te fas yéene na chaque un mois et demi ma jox leen bu bees. te yu mag a ngi ci di dugg ñëpp ñu ñëpp a ngi ci album bi di ñëw chaque un mois et demi dinaa leen jox benn featuring bu bees. bu bees ak ay ak artistes bu mag. gis nañ sa featuring ak euh, Akhlou Brick boobu nag moom boobu ñëpp apprécier mooy mer day jeex. waaw voilà morceau boobu TikTok bi yëpp ñëpp gars yi dañ ko doon dañ ko doon reprendre salanceeg yooyu noonu est-ce que du de euh, aara moo yokk punch way bi wala yow yaa indi sa style def xaw xam nga mbëggeel moom day intéressé ku nekk. waaw aara moom en fait presque mën naa ni dañ doon fanaan ci studio bi man ak moom sama nit la sama gaañ la mais feelingam feelingam la aara loolu yàlla moo ko may bokk noonu si job affaire yu bare mais indi na feelingam man tamit indi naa feeling. Mhm. day sa indi feelingam aussi ñu boole feeling yi mu nekk ñett ku nekk wax li nga xalaat. morceau bi génn toj ñëpp TikTok ko ñi challenge ko. Mhm. comprendre moo tax ñu tuddee morceau bi mer day jeex. d'accord mais morceau bi euh, comme sa voix yow déjà xam nga question directe la nag da may comprendre rek. est-ce que sa baat neex na. parce que morceau bi da nga ko euh, sa baat bi da nga ko électroniser la ñuy wax de. déedéet déedéet déedéet man. est-ce que baat bi naturellement nag. man sama baat gënoo mën ci jëmbe yi ka ka ka way. non non man sama baat su may wax nii ak yow. Hmm. da ngay gis ni kii baat bi dafa dëgër. waaw mais nga tiim micro pour woy yaa une autre boo xamante ni moom nga war a woyee parce que am na kuy woyee biir am na kuy woye dënn am na kuy woye bakkan ay technique laa lay wax parce que woy fépp la nekk mais man su may woy damay génne li nekk ci sama biir moo tax mhm. baat bi di wàcc yàkkamtiwu ma ko quoi damay jël sama temps def ndànk def li ma bëgg def Mm-hmm. boo ko dégloo yow kontaan. non déglu naa son bi moom koy déglu naa ko moo <laughs> déglu naa son bi na mais juste ñu bëri dañuy xam nga boo boo commencé dara ñi ñi xamee la ko boo ñëwee way gaa yi dañuy commencé naan waaw baatam bi des na dugg na fii waaw mais léegi bi génnaat na parce que def naa beneen ñoo ngi doon wax kii est-ce rappeur la ou bien waykat la waaw ma ñëw génnewaat beneen way ci sama sëriñ rap ci way ci mm-hmm. Mhm, invité ci Baye Fall. invité Baye Fall si clip boobu sax muy ñuy jëm ah, nga rendre ce hommage sëñ Bass Abdou Khadre. waaw nga ñëwaat. non Serigne Bass sëñ Bass sëñ Bass waaw. jàng waaw nga dama juum <laughs> sëñ Bass nga nga rendre ko si hommage nga ñëwaat ci son bi. waaw un parce que moom morceau boobu ndigal laa ci demee rek mooy sama sëriñ la ñu yàgg lool sax muy sët ci maam Abdou Khafour Mbacké. Mhm. moom mi indi turam si daaree duniya di sët ci sëriñ Mamour Diarra di mag ci sëriñ Touba donc mu nekk famille bu riche ma woo ko laaj ko ci ndigal mu ni ma defar mosuñu ko jox nit pour mu def loolu mais yow jox naa la ndigal pour nga def loolu. nga def ko. ma dem def ko woy ci rab ci mu déglu ko mu kontaan ci lool ma génneel ko ko pour màggal gi parce man du ma xaar ba màggal bi ñoo ma génne man damay génne comme ni ma bëggee génnee sama yëf mooy chaque mois. est-ce que toppandoo woo jaamaan tamit. non jaamaan sama nit la. ah a nekk sa nit waaye nga toppandoo ko. non pourquoi may toppandoo. ah moo fi génne màggal gi nag moom moom moom. waaw moom. moom la ñuy xaar est-ce que moom dafa génne nii. ah danga ko devancer. non bëgg nit ñi njëkk a xool sa bopp déggoo mën la ñoom ñëpp. man papis aw maag benn artiste xaar ma yàlla. ça existe pas mënul sax ne amul doo ko gis fenn man ñëpp laa amal jàmm. Mhm. ku ma woo tey tey bu ma jaamaan woowoon ni ma papis kaay defal ma lii kaay tëggal ma sama morceau bi damay dem tëggal ko ko ba mu neex dem ñibbi. Mhm. comme ni ma koy defalee ñeneen ñi donc c'est tout. donc morceau bi màggal gi moo taxoon nga génnee ko ak yooyu noonu. wala màggal bi moo tax ma génne ko ak sama ndigalu sëriñ. te ndigalu sëriñ. moo tax ma génne ko. Mhm. pour mu nekk jusque ci devanture album bi parce que warul woon sax génn parce que am na yeneen yu ko jiitu yooyoo waroon a génn mais comme màggal bi mu ngi ñëw ma ne xaaral ma génne lii après màggal bi ñu génn yeneen yu stock. Mhm. yaa wax ci son bi way nga ci rap nga ci mën naa wax est-ce que kon artiste bu polyvalent nga fépp nga ma ne waaw ñu ci liggéey lañ nekk su may def dara dan naan ma fii defal lii damay ñëw def loolu. su ma waree tëgg fii ñun ma tëggal fii su ma waree rab fii ñun ma rabal fii su ma waree way fii ñun ma wayal fii mais yeneen yi topp buy ñëw. Hmm. yow sa bopp di nga ma woowaat ni mu Papis gëm naa ni artiste polyvalent loolu du lu lay wax man lay bàyyi nga découvrir. découvrir ko hmm. léegi ak après single boobu noonu lan moo ci topp lan lan lan nga mën a def pour public bi gën laa xam tey. non public bi daan découvrir seen bopp hmm. léegi nii. suñu màggalee ba pare. léegi ñu découvrir lu rëy dina génn lu ngande sax. est-ce que di nga laal tamit yeneen sonorité yi xew yi sonorité yëpp la ñuy laal. comme maîtriser nga musique kay. en fait musique. Mhm. comme ni ñu koy waxee écoute la rek sénégalais européen c'est une mélange. Mhm. ñun ñëpp ñoo bokk Adama Kawa. donc li ma mën a def toucher la noonu laay def toucher. africain bi noonu lay def toucher naar yi noonu laay def toucher bépp race quoi mhm. mais loolu ci idée wu nit la nekk sooy def musique bu def musique pour benn nit deful musique pour tout le monde mais bii di ñëw bu ñëwee yow sa bopp di nga ma woo te di nga fecc. baadu lu leer laa la laal. ñëpp laay laal di nga fecc te di nga ma woo. est mën nañ ci xaar ay featuring. waaw mën na nekk featuring. Mhm. dina nekk featuring bu am doole ak artistes yu mag nag yu mag laa wax waxuma artistes yu ndaw mais artistes yu mag comme kan non yooyu surprise la da ngay bàyyi da ngay bàyyi mu sedd <laughs> waaw kontaan nañ fii ci dalal la peut-être nga wax looy wax sa fans yi looy suivre déjà musique bi yow balaa may jeexal sax ne di nga sa tàggatoo fan ngay séntu sa bopp tey boo gisee musique bi ni mu jaxasoo yi ku ne bëgg fësal li muy def yow fu ma la doon wax fan ngay séentu sa bopp ci musique bi tey fan la. waaw musique bi man maa ngi ciy séentu sama bopp fu sore. Mhm. wax dëgg yàlla. parce que malgré li may def nii sénégalais xam na ko mais su ma génnee ci Europe bi di jouer y a beaucoup ah doo tàngal fii ba pare yaa ko wax sànq di waaw mais léegi soo déggee ma ni la maa ngi ñëw di leen ko jox nànk-nànk di leen génneel ay featuring c'était juste ça pour ñu xam nit bi ba bu wootee bu ñu ñëwee découvrir beneen affaire. parce que y' a deux facettes. Papis a ngi woy fii mais boo ñëwee ci spectacle am beneen formule ngay gis. Mhm. beneen facette mais facette yooyu yëpp du nekk loo xamante ni da koy forcer nit ki pour mu découvrir ko da nga koy bàyyi mu ñëw ak boppam découvriral ko boppam dundal ko boppam enjoyal ko boppam su génnee mën ko challenge tu comprends. Mhm. mu nekk lu neex ci moom mais doo ko forcer kenn da ngay bàyyi da ngay naturellement rek. en tout cas promettre nga ñu ay ay son yu doy waar. non yu taje ngi ñëw. waaw kon ma dinaa la woo kon. non <laughs> incha allah waaw ma bàyyi la nga tàggatoo ak lay wax sa fansi yu doo doon suivre. waaw maa ngi tàggu sama fansi yëpp di leen wax ni maa ngi leen di béggee te gis naa seen cofeel ci man maanaam seen cofeel ci man ak bëgg ngeen bëgg dinu woo saasu ne dinu encourager ci affaire yu bare yu ñuy def. donc di ci gërëm aussi sama ñaari ménageurs yi nga xamante ni ñoom ñooy lépp ku ñuy wax Ousse comprend nga ak Alioune producteur bi. Mm. comprend nga yaa ak grand Michael Souma mi jàpp ci biir business bi yëpp ñoom ñëpp ñëpp ngi ci biir business bi. Mm-hmm. donc di ci gërëm sama sëriñ sëriñ Bassirou Diang ak toute la famille. d'accord sant sama yaay sama papa di gërëm ñëpp. di wax nag on love à tout le mhm. merci beaucoup.